Et merci de m'offrir l'opportunité de m'adresser au peuple sénégalais. Je me félicite, comme l'ensemble du peuple sénégalais et de la communauté internationale, de cette très grande décision historique du président Macky Sall. La seule décision qu'on pouvait espérer et qui soit à la mesure de l'homme d'État bâtisseur et ambitieux pour notre pays et pour notre continent. Ma satisfaction est d'autant plus grande que le président Macky Sall a d'abord honoré sa parole et ses écrits. Il a ensuite, comme vous l'avez souligné, respecté l'esprit et la lettre de la réforme constitutionnelle de 2016 qu'il a lui-même initiée. Et le concert d'hommage unanime qui émanent du peuple sénégalais, ceux de l'intérieur comme de la diaspora, mais aussi de la communauté internationale, d'est en ouest, du nord au sud, prouvent à suffisance que par cette décision, le président Macky Sall s'est définitivement hissé à une station beaucoup plus élevée que celle qu'il s'apprête à quitter le 2 avril prochain. Je pense que tout le monde lui doit un très grand merci pour avoir honoré de cette manière le peuple sénégalais et l'avoir restauré à sa place de modèle d'exception. Il va falloir maintenant réconcilier les Sénégalais. Avant d'en venir à la réconciliation, euh, Macky Sall ouvre une nouvelle page dans l'histoire politique du Sénégal. Pour la première fois, le président de la République ne participera pas euh, à l'élection présidentielle qu'il va lui-même organiser le 2 avril. Il va passer le témoin après avoir dirigé ce le pays pendant 12 ans et avoir un bilan globalement satisfaisant, honorable. En tout cas, sur le plan des équipements, des infrastructures routières, hydrauliques, j'ai surpris la dernière fois une conversation de chasseurs libanais qui discutaient et qui avaient l'habitude de parcourir les brousses sénégalaises euh, pour leurs activités de chasse. Et ils disaient entre eux qu'ils n'ont jamais vu autant de pistes et autant de forage dans la forêt sénégalaise que pendant les 12 ans de Macky Sall. Donc le bilan de ce point de vue est satisfaisant. Comme je le dis toujours, sur le plan immatériel, il y a sans doute des choses à améliorer. Mais globalement, il a fait un très bon travail. Mais par cette décision-là qu'il vient de prendre, je pense que tout est dit. Là, il bénéficiera d'une mention honorable sur les langues de la postérité. en Afrique et dans le monde. Alors, c'est une décision qui va davantage pacifier euh, l'espace euh, politique. politique et même euh, l'espace socio-politique au Sénégal. Tout à fait. Alors, quelle perspective est-ce que vous en voyez est-ce que, Qui est-ce qui va prendre en charge le legs de Macky Sall Qui est-ce qui va conduire les destinées de la famille libérale Est-ce que vous vous croyez à même de pouvoir prendre en charge ce legs Vous savez, arrêtons-nous d'abord sur la pacification de l'espace. La paix est l'ingrédient premier de toute activité humaine. Sans paix, sans stabilité, sans sécurité, rien ne peut se passer. On ne peut ni éduquer, ni enseigner, ni cultiver, ni pêcher, ni chasser, ni s'amuser. On ne peut rien faire sans paix. Donc ça, ça doit être un sujet pour tout le monde. Toute la classe politique, toute la société, tous les citoyens doivent se mobiliser au quotidien pour que le Sénégal demeure un pays de paix, de stabilité et de tranquillité. Même les investisseurs étrangers et même les investisseurs nationaux se posent comme première question avant d'investir est-ce que l'endroit où j'investis est sûr ou pas Dès qu'ils ont un doute sur la sécurité et sur la stabilité, ils ne font rien. C'est seulement après être rassuré par rapport à la sécurité et à la stabilité que l'investisseur s'interroge sur son payback, c'est-à-dire le retour de l'argent qu'il aura sorti, et sur le retour sur investissement, c'est-à-dire la rentabilité de son investissement. Donc la paix est un ingrédient premier. C'est pas de la faiblesse que de travailler en direction de la paix et de la stabilité. C'est la plus grande force. Et l'État a surgi dans l'histoire humaine précisément pour garantir la paix lorsque les hommes, poussés par les changements climatiques, se sont retrouvés autour des fleuves nourriciers pour fonder des civilisations. Ils ont eu besoin de paix, de sécurité et de stabilité. Ça, c'est l'ingrédient premier. Maintenant, la suite. Dieu seul sait qui sera là en février prochain, d'abord. Et qui il aura choisi à travers le choix du peuple sénégalais pour diriger les destinées du pays. Mais ce dont il faut se réjouir, c'est comme l'a dit le président Macky Sall, le Sénégal est rempli de leaders compétent, bien formé, très patriote, désireux d'offrir à leurs enfants, leurs neveux, un avenir radieux. Et de toutes les façons, la compétition sera ouverte, sera transparente. Le président qui l'organise n'a aucun intérêt particulier à défendre et il va encore bonifier sa sortie en organisant des élections transparentes. Et les Sénégalais choisiront. Et les Sénégalais savent choisir. Ils votent depuis 1789. Ils savent voter. Le plus important, c'est que parmi les offres politiques présentes, les idées et les programmes en compétition, le cadre soit tel que les Sénégalais choisir sereinement le meilleur avenir pour la jeunesse du pays. et pour la jeunesse du continent. Le vœu formulé euh, par bon nombre d'acteurs politiques, c'est que l'élection soit la plus inclusive possible, c'est-à-dire que toutes les candidatures manifestées soient prises en compte. Absolument. Est-ce qu'on peut espérer un processus électoral paisible, euh, une élection euh, paisible avec la chape de plomb judiciaire et qui plane encore euh, sur la tête euh, de Ousmane Sonko, le président du parti PASTEF. Je ne connais problème judiciaire. Mais en tout état de cause, le principe doit être une élection inclusive. Seul le citoyen électeur doit déterminer à qui va son vote et doit choisir. Maintenant, nous devons respecter le cadre législatif et réglementaire sénégalais. Ceux qui, du fait des lois existantes, sont exclus du processus doivent accepter cette exclusion. Mais le principe, c'est l'inclusion. Maintenant, je ne connais pas l'issue de cette procédure-là. Merci beaucoup. Merci. Euh, Idriss euh, Seck, président Merci. parti euh, Rewmi. Euh, nga nekkoon Elimanu Diawriñ ci fii ci Sénégal nekkoon dernièrement président conseil économique social. et environnementale. Je rappelle que vous êtes candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024 euh, yow nag nga yàgg wax ne euh, balaa ngay yëy addu ci mbiru mandat bi. c'est ça da ngay xaar ba nga xam ne moom mooy le principal concerné Macky Sall mu wax. c'est démb mu nekk une décision historique. Euh, Sénégal euh, capté toute l'attention de la communauté internationale fii ci biir réew mi mm. ñëpp rafetlu décision bi président xam na ne moom du dem. et que d'honneur bi ko régir mayu ko muy nërmel li nga xam ne moom mooy ëllëgu réew mi gannaaw moom ba mu waxee eh, yow eh, lan nga ko ciy dollu jërëjëf Maymuna ginnaaw bi ma la nuyoo jaarale sama nuyoo bi jëm ci askan wi ci seen télévision bi ma lay sant bu baax ci opportunité bi nga ma may li may njëkk a def mooy rafetlu bu baax a baax a baax li nga xam ni lii président de la république jël na ko comme dogal dogal boobu mooy bi ma doon xaar ci moom puisque du tey laa ko xam Macky xam naa ko depuis quatre-vingt-neuf bi muy ñëw ci PDS jóge AJ donc décision bii rek laa doon xaar ci moom te décision bii rek moo mënoon euh, méngoo ak dayoo homme d'état ak chef d'état boo xam ni am na ambition pour réewam mais am na surtout ambition pour continent africain puisque xam naa ci moom ne lépp luy gàkkal deru Sénégal wala lépp luy gàkkal deru Afrique dana ko moytu lu mu man donc man décision bi bettuma loolu moo taxoon ma ne na nit ñi teey xaar kenn du toj gémmiñu sàmm te wëliisagul léegi nag defe naa ni bi mu wëliisee ba pare mbégte moo ëpp ci ñépp nag ñi ko doon xarab ak ñi ko doon kañ yépp am nañu mbégte tey bu ngeen dégloo muy ci biir réew mi muy bitim réew muy waa muy waa àddina bi ñépp ñoo ngi kañ senegal senegal dafa mel ni delloowaat nañ ko sagam ci Afrique comme model modèle démocratique delloowaat nañ ko sagam ci àddina bi te décision bi mu jël li ma ci gën a bégloo mooy yëkkati na ko ci màqaama boo xam ni moo gën a kawe bii muy waaj a bàyyi gis nga na Mandela meloon ci Afrique du Sud ba mu bàyyee jox taboo mbekki ku daan visiter Afrique du Sud gis Mandela nuyu ko moo lay gënal dem ci taboo mbékki donc je pense que décision bii mu jël boobu dayoo la am yëkkatiwaat na image yu Sénégal ñépp a ngi koy wax boo dégloo chef d'état africain yi wala ancien chef d'état yi ñépp ñoo ngi naan Sénégal mooy porte flambeau démocratie je pense que euh, euh, ñi nekk ci diaspora bi man li ma jot ci ay message yu bàyyi ko ci ay diplomates internationaux ay autorités internationale moo ëpp li ma jot ci message yu bàyyi ko ci réew mi donc loolu rek jaroon na ñu teey bàyyi ko ak teeyu bakkanam ba mu àddu léegi bi mu àddoo mbégte moomu laa ci laa ci am léegi xëy na li ci des mooy ñu jubalewaat Sénégal ñëpp àndandoo nekk benn bokk ndey bokk baay waroo ci xalaat warula jur noonoo waroo ci xalaat warula jur yàq ak toj li ñëpp bokk que yow boo ko tojee yàq ko da nga koy yàqal ñoo xam ni ñoom nga ne ñoom ngay xeexal parce que boo yàqee transport en commun waa population bi ñoo ciy dugg boo yàqee université jeunes yi nga ne ñoom ngay xeexal ñoo fay jàng ñooy jëfandikoo téere ya fa nekk ak archive ya fa nekk donc waroo ci xalaat li tax démocratie baax mooy lépp danga koy def ci dal ak ci waxtaan toog wax comme ni ñu def bi ñuy def dialogue nationale bi wax nañu d'accord ñu ci lépp mais au moins li mu jur mooy li ñu d'accord xam nañu ko li ñu d'accordul xam nañu ko li nga xam ne lii dafa laaj xóotal mënuñoo wax ni d'accord nañu wala d'accord ñu xam nañu ko loolu la waxtaan di jariñ te loolu mooy mooy démocratie en tout cas daal pour dellu si ci ah décision bi ah, daal vraiment euh, c'est extraordinaire Sénégal à ah, l'international totalement mais loolu may mun a yaa a ko gën a xam oui euh, mais yu yu yu kenn xamul ba nga xam ni Sénégal defe woon nañ ni benn pays boo xam ni ci ci suux la jëm wala def ni ñeneen ñi coup d'état wala xeex bu dul jeex wala guerre civile loolu la nit ñi jàppoon mais tey wala démb ak tey bi nit ñi déggee président de la république wax beneen xar kanam la Sénégal am beneen yëkkatiku la am musu ko ñàkk sax nag puisque même bi nga xamee ni nit ñi fexe nañu ba ay trouble am fii ay xeex am fii ay yàq am fii ay toj am fii xam nañu ne Sénégal am na capacité def fas ci loolu même ñi ko doon jéem ñoo la gën a xam ni état Sénégal du bàyyi loolu bu wéy dana ko saafara gis nga France bërki démb benn xale bu benn alkaati rey la ñu fa yàq ak la ñu fa taal donc kenn muccul ci ci violence mais li am solo mooy état bu dëgër institution bu dëgër ay forces de sécurité et de défense yu xam seen métier xam seen liggéey ba nga xam ni bu tàkkee it danañ ko mën a fay te loolu président de la république liggéey na ci force de sécurité yi liggéey nañ ci citoyens yi ak même médias yi liggéey nañu ci delloo si jàmm jooju ak euh, dal boobu xam nga mébétu acteur yu bari euh, gannaaw ba président jëlee décision am euh, dañoo ne élection bi nañu ko yaatal ñi war a bokk ñëpp. tout à nañu ci bokk. tout à euh, yaa ngi naan nañu jubboole réew mi. Mm. waaye est-ce que mën nañu pacifier totalement l'espace politique ak le pays bu fekkee ne am na loo xam ne. ci mbiru justice la. c'est ça euh, mu ngi plané ci bopp xam waaw xam nga bugguma singulariser mais société lii tax mu am mooy justice mooy yow mii bu ma la tooñee ñu teg ma daan boo ma tooñee ñu teg ma daan te du ma fajal sama bopp doo fajal sama bopp donc. nit ku nekk li nga xam ni lii moom lañu bëgg mooy élection inclusive ku war a bokk bokk gis nga États-Unis par exemple ñoom candidat bu nekk même buñ la condamné crime bi gën a graw nga bëgg a nekk candidat da ngay nekk candidat ñoom amuñu benn gàllankoor buy tere nit ki nekk candidat bokkul ak Sénégal Sénégal dafa am ay loi yu ñu wax ne boo defee lii def lii def lii ñu teg la daan bii daan bi doo bokk loolu defuñu ko pour kenn ku mu dal ci sa kaw rek mu dal ci sa kaw mais loolu bu deñee c'est-à-dire bis bu ñu demee ba nga xam ni justice day dogal ñu ne la justice dogal bu ñu ko doxal kon kay tijji leen kaso yépp bis bu ñu demee Sénégal ba nga xam ni justice dogal na ñu ne la mu dogal bu ñu ko doxal nañu ko teggi teg fële pour yeneen raison société bi tas na puisque ci ban base ngay jàppee ki sàcc ginaar gi wala ki dem euh, def accident circulation rey nit wala nangam ci ban base nga koy jàppe y des milliers et des milliers de sénégalais yu nekk ci prison bi lu leen fa décision de justice yow parce que leader politique nga nga mucc ci loolu ah wala boog ñu voté benn loi daal di ne ku am parti politique wala kuy defar politique loo mën ci def mucc nga kenn du la teg daan bu boobaa defe naa ni 17 millions de partis ñooy am <laughs> ah loolu rek mën a nekk mais société mënula am sans le commun respect par tout le monde des décisions de justice gis nga États-Unis gii ngay wax ak France yi ñu jàppee modèle bis bu ne cour suprême ba wala conseil constitutionnel ba jël dogal boo xam ni débat yu dul jeex lay jur ñii duñ ci d'accord ñii di ko ŋaañ mais benn américain xelam du dem ci violer la cour ba décidé benn ñoom ñëpp ci ànd ne lii dañ koy wëyal tant que loolu mooy tax société am donc nañu jàpp ni élection inclusive la ñu bëgg maa ngi ñaanal euh, Ousmane moomu nga wax sama jarbaat la j'ai beaucoup d'affection pour lui yaayam Thiessoise la donc euh, ñaanal ko mu génn ci euh, problème yi mu yi mu nekk mais bu dalee ci kawam itam mu muñ yeneen élection ngi fi te te moom xale la pardon absolument non man sama man bu doon man damay def comme aux États-Unis c'est-à-dire du ma def benn gàllankoor. du ma def non du am déchéance électorale damay bàyyi peuple bi yow peuple bi bu xamee ni yow euh, sàcc nga alalam. wala yow def nga crime wala def nga lii peuple bi mooy tànn est-ce que bëgg na président bu mel noonu wala déet aux États-Unis c'est comme ça amul amul déchéance élec électorale mais. ci situation Sénégal nii mu nekkee dafa am ay loi yu tëral ne condition bii ak bii bu dalee ci sa kaw doo bokk loolu ku mu dal ci sa kaw ak ku mu mënti doon même bu doon man waruma bokk. waaye euh, yow euh, euh, na ci bu déedéet non may mun a del wax lu la wóor yow da fekke woon waxtaan bi euh, déedéet non loolu musu ci bokk dégg naa la ba bu dégg naa la ba tàyyi nga di ko wax ma ne fu mu jëlee lii. déedéet déedéet non xam nga ñun ñaar. février war président war février mars. président waroon na déterminé wu. oui sax ci nga commencé ci commencé génn waaye man sama question sax du loolu loolu nañu ko. c'est ça mais sama question mooy. Euh, est-ce que da ngay positionné wu pour euh, yeggali yéene Macky Sall c'est-à-dire jël legam. ou est-ce que euh, da ngay positionné wu pour conduire les destinées de la famille. ah non quel que soit le successeur de Macky il devra s'appuyer sur son bilan, qui est magnifique. Mais mieux encore, Macky Sall sera aujourd'hui plus utile au Sénégal et à l'Afrique qu'il ne l'aura été pendant ces 12 ans. Aujourd'hui, toutes les portes lui sont ouvertes. Il prend son téléphone, il appelle Joe Biden. Toutes les grandes universités du monde s'intéressent à lui. Euh, ma ma ma wax ko ci wolof dama ne képp ku yàlla dogal. nga wuutu Macky Sall dangaa war a sukkandiku ci limu mu liggéey d'abord bilan bi baax na ensuite nga tàllal ko sa nopp liggéey ak moom ndax fii mu tege tey ci décision bii mu jël àddina bi wekk nañ ko wekk goo xam ni tey lay gën a ëpp njariñ pour Sénégal ak Afrique que bi mu nekkee président du Sénégal tey bu yëkkatee téléphone am bu 2 euh, avril jotee ba mu bàyyi laa wax de ba nga xam ni nekkatul président génn bi rafet na rafetaay boo xam ni parcours bi mu def expérience bi mu ci am nekk maire de Fatick nekk ministre nekk premier ministre nekk président assemblée nationale nekk président de la république nekk président de l'union africaine ba noppi génn génn bu rafet bi dana ko may maqaama boo xam ne ci àddina bi ku mu yëkkati téléphone am woo la moom ngay njëkk a jël k président yi toog donc ku am xel te bëgg a jiite senegal ëllëg def ko xarit man de sama rakk la <laughs> lu leer laa wax. mais gis nañu ne da nga da ça gaañu gaañu bu ndaw ak engin yi rek. ak ah, xam nga rek manipulation waaw maa ngi waajal nawet bi. Ah, ah. <laughs> absolument en merci beaucoup. merci beaucoup euh, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. nga allah dégg euh. naa la keroog nga ne yaa may baab mais jaru ko <laughs> MNF c' est un plateau apprécié. Merci beaucoup. Inch'Allah, je viendrai vous rendre visite. Merci beaucoup, euh, Maïmouna. Merci beaucoup. Merci euh, beaucoup. Euh, ancien président du Conseil économique, social et environnemental. Merci donc c'est fait Idrissa Seck joxe na li nga xam ne euh, moom mooy son sentiment euh, sur la question du mandat et sur l'acte historique euh, hier euh, par le président de la République Macky Sall. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Merci. Au revoir. Tout à fait. Merci. 7 TV, votre chaîne préférée, vous suit partout et vous pouvez la suivre presque sur